ñi tok fi yëpp ay ay ima lañ ay kilifa lañ ay xaafisul quran lañ xamul lu lul yalla neena ak yonent bi neena ñu jëm nak ci fal ñu wara yor suñu suñu suñu gox par googu nak ak wat gu reey la ndax yonent bi neena ñun ñëpp ay kilifa lañu te gep kilifa gu nek ëlëk di nga layo ak ña yilif di nga layo ak la nga yilif ginnaaw ba ñu seetee loolu suñu diggante ak suñu boroom seet xool askan wi ak ñi askan wi di dunde xool gaa yi ci làng gi gaa yi ci arène bi ci wàllu politique jàngat leen càmbar leen ba xam ku ci nekk yaa di kan ma ne ñun ñëpp xam nañu ñoom ñëpp ku ci nekk yaa di kan ak foo dëkk ak foo nekk ñu gis ne Boubacar Alba mooy candidat bi nga xam ne moo ñu arrangé moo arrangé Tëngéej moo arrangé réew mi loolu moo waral suñu daje bi ñu ànd ko nag ak képp kuy kilifa ci dëkk bi. xam ngeen ne wér ñëpp soxla nañ ko ci jamono yi tëngéej lan ngeen ci xamoon ci ay dispensaire yàgg na xool leen tey fi ñu toll demal cëw leen demal guy murit xoolal PMI lépp Boubacar Albé Ndoye la ah Castor jërëjëf dégg nga xoolal taxawaay ba ci Youssou Mbargane Diop xolal taxaway bi ci polyclinique bu Tëngéej dispensaire u de nga wax bi xolal plateau yi legui niñu mel niñu relever par rapport ak en temps xolal tali xol len électrification lampe yi lumière bi leer gi ci dëkk bi kon lampe solaire yi bari na ñun ñëpp gis nañ ko waye kon nak sante yalla waye gis nga loolu lepp nak kuko kuko kuko man ku ne nak c'est parce que bobo sa loxo mo set borom la xabu setul monoko te loxo bu set kat defe naa nguur gi dëgël nañ ko ci Boubacar Albi Ndoye